ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara bu baax di leen baal àq itam ci koor gi nga xamee ne moom la ñu génn fa tabarakallahu lépp lu luñ ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu mel na nag dañoo dellu ci émission bi nga xamee ne moo di yoon wi ñu koy amal fii ci 2STV muy émission classique boo xam ne bii bokk na ci liñ fi waxtaanee ci wàllu diine ci yi nga xamee ne ñooy base bi pratiquement bi télé bi tàmbalee ba léegi fa tabarakallahu ñu ci jaajëfal nag bu baax a baax borom kër gi di El Hadji Ndiaye également ak soxnaam di soxna Marème ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci wàllu eh, jàppale wàllu diine ak ñi nga xam ne ñoo di ustaas yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër gi fa tabarakallahu mu mel ne nag tey dañu jëm ci wàllu waxtaan waaye waxtaan wi nag benn aaya la aay alxuraan boo xam ne bii mu ngi nekk ci suratul ahzab ñu dala ci sëñ Saliou mii nga xamee ne sëñ Saliou Samb mii nga xamee ne yàgg nañoo toog fii muy wax lu am am solo ci alquran aaya bi nag mi ngi tàmbalee an nabiyu ula mbil muminina min anfusihim ila axiril aaya nga xam ni loolu lu nekk ngi ci biir mm-hmm. ñu ñu cuqati nag boobu fas ko yéene waxtaane euh, sëñ Saliou salaamaaleykum waaleykum salaam ustaad ahansanil baaxi min asheytaani mm. fi kulli majlisin wa fil awtaani xibaadati btadaxtu bismillahi wa huwa kafaani yasawil malaahi hmm. wajjaxatu kull alhamdi wa shukuri lil maliki rahmani wa shakuri salli wa sallim wal tabaarik sarmada alallasi samaytuhu muhammada wa alihi wa sahbihi wal anbiya waskurtihi almuqaddamaati rabbiya hmm. wasrax biha sudura man taxallamu sharxan bihi laa taxtarihim sulamu barkeb Sëriñ Tuubaa hmm. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi réew mi ak bitim réew mboolem ñi topp seen télévision bi 2STV rawatina émission ba mu solo bii di yoon bi mm. ñoo ngi leen di waxaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu oustaz noo ngi lay fay am nuyoo te di la nuyu mm. waaye noo ngi lay ndokkeel itam ci weeru koor yi nu génn ni nga ko waxee mm. di ci ndokkeel umma islam bi yëpp rawatina iidu fitri bii nu génn ak xutba yaam solo yi ci kilifa yi taxawee di ci jiital ak ndokkeel Cheikh Modou Mountakha di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ko wér ànd ko njaboot gi ak sëñ Babacar Si Mansour ak mboolem xulafaawu yëpp ak njaboot yi waaye di ci beral am nuyoo akub siyaar rek akub ndokkeel sang ba soo soxna Aida mm. Saliou moom Serigne Béthio mm. di ko ñaanal li mu yàgg fi te wér ak njaboot ga ak buntam ya mm. euh, oustaz ñoo ngi leen baalu àq di baal di sant bu baax nag ci thème bu solo bii nga indeeti di ñaan nu dugg ci bismillah génn ji ci alhamdulilah te luñ ci wax mu doon njariñ te jariñ no jariñ ñu koy diglu mm-hmm. insha allah taala mm-hmm. euh, ci ci suratul ahzab wax naa ko léegi aaya bi dafa tàmbali rek tudd yonent bi daal ne an nabi u awlaa waaw awlaa bil muminina min anfusihim min anfusihim jërëjëf ila axir aaya waaw oustaz ban jànkat nga am ci lubbu aaya bi yëpp ci jërëjëf aaya bi nu indi tey ci jotaay bi hmm. dama la ciy sant ndax aaya la boo xam ne ba mat a waxtaane la hmm. aaya bi sax boo ko toppee ba mu jeex ñetti mbir la traité hmm. di ñetti mbir yoo xam ne bu ca nekk mat na jotaayu boppam ndax ñetti information la donte nag lëkkaloo na waaye benn bu ci nekk dafa am taxawaayu boppam ak waxi boppam yow mu tàmbalee rek dañu annabiu awla bil muminina min anfusihim da cee joxe information bu rëy mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi mooy nga xam ne moo ëpp àq moo gën a yey hmm. moo ëpp ay responsabilité ci képp ku gëm lépp ak ñëpp ba ci boppam mm. maanaam yonente bi mooy ki gën a yey mooy ki ëpp àq mooy mm. képp ay warugar ci képp ku ne ab jullit la mm-hmm. moo ko gën a yey ci ay way juram mooy way jur wu góor ak bu jigéen mm-hmm. moo ko gën a yey ci ay bokkam moo ko gën a yey ci ak njabootam moo ko mm. gën a yey ci mbindeef yëpp ba ci boppam mm-hmm. information boobu nag wax la ju rëy ju am yu muy junj ak yu muy wax mu daal di loolu nag waxi boppam la mu continué ni dara jaam ju jooju ak àqam ju rëy jooju ci gëm ñi tax na wa aswaajuhu ummahatuhum loolu jeneen waxit mooy ay soxnaam ay wayjuri jigéen leen ci yéen jullit ni jullit bu nekk soxna si yónnente bi ndey la ci yow mm-hmm. jullit bu nekk bët bi ngay xoole sa wayjur wu jigéen moom nga war a xoole soxna si yónnente bi mm-hmm. ni sa wayjur wayjur wu jigéen doone sa kilifa itam soxna si yónnente bi sallallahu alayhi wasallam noonu la doone ci yow kilifa nga xam ne bët boo ko xool bu dul bëtu wayjur sax mm-hmm. nëbb ko ak feeñal ko sumbura da ciy tëkkoo ci njeextalu saar yi ci la wax wala an tankihu aswaajahu min baxdihi abada mm-hmm. inna daalikum kaana hindallahi xasima mm-hmm. in tubdoo shay'an aw tuxfuuhu fa inna allaha kaana bi kulli shay'in alima mm-hmm. lan moo waral nag soxna yonente bi doon way jur ci mboolem way gëm ñi loolu waxi boppam la mu tëje ko jeneen wax mooy wa ulul arxaami baxduhumu awla bi baxdin fi kitaabillahi min almuminina walmuhajirina illaa an tafxalu ilaa awliyaikum mahrufan mhm. kaana dalika fil kitaabi masura mhm. loola yi di joxe beneen information mu benn luwaax boo xam ne moom yàlla tëraloon na ko njël bennug lislaam jamono januy gàddaay di fekk yonante bi madinatu munawara luwaa boobu nag mu toll ci sensé ko luwaa boobu mooy lan bu njëkk képp koo xam ne gàddaayoo fekk yónente bi madinatu munawara képp koo xam ne gàddaayoo kookee bu amee alal mbokkam lu mu ko jege-jege te gàddaay yut ni moom sañu ko doon duñ mm. donnante mm. nga xam ne kala sañ a doon rek gën a yee ci yow ki sa alal mooy ki nga bokkal ngeen gàddaay dem a munawara ci njëlbeenu lislaam loolu rawatina sax quarante cinq personnes quarante cinq personnes yónnante bi seexale woon mm. ndax daa jël ñeent fukk ak juróom ci muhajirin seexale leen nag fukk ak juróom ci lansaar kenn ku ci nekk mun la diw mi mooy sab seex nga xam ne di ngeen dem di donante ba ci lépp loola nag njëlbeen ga woon léegi nag moo wax ne nag loola nag folli na ko bis tey kenn ku ci nekk sa alal sa mbokk moo ci gën a yey ci donn la lu dul ne ndénkaan yoo xam ne yaa ko mm. bàyyi ci ne diw ak diw maa leen jox nangam ci sama alal lan moo tax nag lislaam di indi ab àtte ba yàgg mu folli àtte boobu ngir context ak i yëf ak i xew-xew ba yàgg mu folli ko loolee am na lu muy jàngale mm-hmm. ci lislaam am na lu muy wane loola it waxi boppam la kon damay ñaan ñu nu nu njëkkee wax ju njëkk ji def ko jotaay bi muy annabiu awla bil muminina min anfusihim mm-hmm. Ah, kon loolu mën nañ ko def jotaay bi mhm. loolu nag ustaas boroom xam-xami lislaam ji yëpp rawatina alxaarifoona billaahi danoo ànd dëppoo ci d'accord ni wax jooju yi suñu borom tijjee aaya bi muy annabi u awla bil muminina min anfusihim mhm. bokk na ci wax yi gën a rëy gën a ràññiku gën a leer ci wane maqaamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne moo féete kaw maqaama kudul moom mhm. mu ëpp daraja ci yàlla kudul moom place bi mu taxawee diggam ak boroomam it kudul moom taxawuu fa waaye bokk na yi ci aaya bi gën a wane ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem mbindeef yi mooy ki ci féete kaw ëpp ci àq ëpp ci daraja lan moo tax bala ñu ñëw sax ci maxnaa mi dañuy njëkk ñëw ki siixa bi yàlla waxe mooy waxin wi lii ahlu bayaan di wax naan tasbihul aqrab ilal qarib moom la def mooy tudd lu gën a yey ca lam gën a yey mooy lan fi ne suñu borom dani yéen way gëm ñi yonent bi moo gën a yey ci yéen ëpp àq ci yéen seen bopp nga déggee ca ni mhm. ndeke mu ëpp àq ci ñun suñuy wayjur mu ëpp àq ci suñuy bokk mu mhm. ëpp àq ci ñun mboole mbindee fi lu tax mooy nit boppam ma ko gën a jege laneen lu dul boppam boppam ma ko gën a yey laneen lu dul boppam ibnu jarir at-tabari bi muy dugg ci eh, tafsir bi dafa wax ne aqrabu ma lil insaani wa awla ma lahu nafsahu waaye fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wa awla bihi min nafsihi mhm. dañu nit boppam moo ko gën a jege lu dul moom ndax bala nga ne naam ne fa. Mhm. nit balaa balaa am àqi waajur di ko war ci moom daa fekk mu am ku amul benn àq waru la ña mhm. juddoogun mhm. àqi waajur waru leen ni ndax amagun waajur nit balaa am lu ko war ci diggam ak njabootam daa fekk mu am di amul doo njaboot bala laa benn àq sa diggante say bokk wala ñu naan sa alal ku amagul amu doo am dara di ndax ña juddoogul dara waragu leen amagun àq ci kenn kenn amagul àq ci ñoom ndax dañoo amagul moo tax kon bala nga ne naam da nga fay ne kon nit boppam moo ko gën a jege neen lu dul boppam moo tax sa àqi bopp moo la gën a jege àqi keneen ku dul moom moo tax suñu borom jël li gën a yeey xam nga boo nee kii kat moo raw première doo laaj ba xam moo raw deuxième ka jël première nooy laaja ba xam moo raw deuxième ban moo jël première rek waxaale na la moo raw deuxième ak troisième mm-hmm. loola mooy tudd la gën a yey mu yóbbaale lan gën a yey mm-hmm. ki man ki man gaa yëpp doo laaj ba xam moo gaa yi ko man ndax mm-hmm. comme ka man gaa yëpp moo leen man bu ne kii kat man ñëpp moo leen man doo laaj ñan man nu mu def ak ñoom xam nga loolu du combat mm-hmm. waxin woowul moom la moom la bayaan di wax tasbihu aqrab ilal xarit moom la yàlla def mm-hmm. gis nga nit boppam a ko gën a jege ci lépp boppam a gën a yey ci boppam ci lépp moo tax nga dégg wolof naan sama bopp ma la gënal du bañ naa la mm-hmm. nit feeg amagul boppam benn àq waragu ko ci kenn ndax ci boppam lay sàmmi àq yi ko war ci ñëpp nit sax bu amee boppam dem ba yàgg mu ñàkk boppam àq ju ko waroon da koy wàcc pour wax la ne la nit boppam ko gën a jege mm-hmm. ci misaal nit bi demoon ba yàgg mu tàggale ko sagoom nga xam ne nekkatu fi toggatuñ ko dara ak waajur waratu ko ak yi bokk waratu ko àq ak ak àq mbokki julli di waratu ko lu tax mooy moom daa amatul parce que ñàkk na boppam mm-hmm. nekkatu fi nekkatu fi kon loolu moo lay wan ni ko nit boppam moo ko gën a jege ku dul moom boppam ëpp ëpp àq ci moom ku dul moom mm-hmm. waxin woowu sax suñu borom waxoon na ko ci boppam bi mu nu bëggee wax ne moo nu gën a jege lépp lu dul moom dañu ko misaal ci suñu bopp ne ni ngeen jegee seen bopp ba ki seen buumi xol loolu sax maa ne ko gën a jege mm-hmm. wala xad xalaqnaa l-insaana wa na'lamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu mm-hmm. wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil wariid maa bind doomu aadama li muy xalaat ci boppam xam naa ko maa ko gën a jege buumi xolam ndax nit ki lu ko mën a jege boppam ma ko gën a jege mu ne ko sa bopp mi la gën a jege sax maa la ko gën a jege waxin woowu la yàlla wax daal ni annabiyu yonent bi awla bil ne min anfusihim moo gën a yey moo ëpp ak ci mboolem way gëm ñi ba ci seen bopp mhm. kon bu xasee tudd seen bopp waxaalewul la neen ndax laneen lu dul sa bopp sa bopp la ko gën a jege sa bopp la ko gën a ëpp ak sa bopp la gën a yey ca loola comme sa bopp la gën a yey ca lépp na mën la sa bopp moomu sax mhm. yonente bi bu ko soxlaa baa ma soxla ci moo ëpp ak ci yow ca moom kon loola dafa wane daraja yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag daa am lu ko waral lan moo ko waral mhm. mooy annabiu ci la ko firi fi ne baatub annabiu mooy nit ki comme boppam moo ko gën a jege lépp mhm. bu amagul boppam du mën a am leneen ndax bala nga ne naam ne fa boppam moomu nag yónnante bee tax mu am benn ndax sopp gu yàlla sopp yónnante bi salaa salaama moo tax mu amal jëmmi nit ki ba noppi deuxièmement mooy bi mu ko bëggee amal ngir sopp ko it première matière bi mu ko amale mooy leer ak yonente bi sallallahu alayhi mhm. te gis nga ñaari wax yi ñaari wax yooyu ñëw na ci biir aay bi waaye mi ngi ñëwee ci baatub annabi u nan la ñëwee ci annabi u nag moo mat a xam mhm. gis nga yàlla waxut ar rasulu awla bil mu'minina min anfusihim chaque suur alxuraan mhm. turu mi utilisé ci bi daa am lu muy ci wax ji loolu mat a xam la waxut ar rasulu awla waxul muhammadun awla bil mu'minina min anfusihim waxul al aminu awla bil mu'minina min anfusihim dafay bàyyi tur yëpp utiliser ànn nabi u awla bil mu'mini min anfusihim mhm. loolu daa am lu muy firi foofa ngay xamee ne li tax mu gën a yey ci ñëpp ba ki seen bopp mooy ñaar moo la tax a am sa bopp te ci ci darajaam lan sàkke sa bopp noo koy xamee ci an biiw yàlla saa yu tuddee aw tur ci yonente bi daa am lu muy firi mooy turi yonente bi ngay gis ay fonction la mhm. fonction wu nekk mooy jox jëmmi fonction bi mooy jox yonente bi aw tur ci misaal ar rasulu risaala gee tax Mm-hmm. ndax rasoolu mooy firi ki ñu yónni mooy mm-hmm. la message mm-hmm. kon message bi mu yor risaalatu gi moo ko indi tur ar rasoolu al aminu wóor gi mu wóor ak ko jox amaane gi ci moom moo indi tur al aminu yaa ngi dégg nabiyu an nabiyu buñ ko waxee nubbu woogee tax yaa ngi dégg turi yónente bi danoo magante mooy am na wu mag moro awu mag moro fi ne turu rasoolu turu aminoo ko mag ndax tuddee nañ ko aminu te boobu yónneeguñ ko ndax yéefiri booba gis nañ si ak wóoram ba di ko dénk seen alal mhm. ba sax tudde ko mahamadul amin kon mhm. turu aminoom am na ko ngir fonction amaana bi ci moom te boobu yónneeguñ ko kon aminu sax moo mag rasulu mhm. waaye turu aminu muhammadun moo ko mag ndax muhammadu abdul mutalib moom la ko tuddee maam ji baax ja bi mu feeñee jamono da ngi dégg kon tur dañoo magante waaye tur yooyu yëpp nag turam yëpp xam nga buy taaw an nuuru waaye tofa ba mooy annabi u am nuuru du tax mooy taaw yonent bi daa bokk ci ay turam nuurullaahi tur woowu la njëkk am ndax alxuraan tudd na ko boo demee ci maayida suñu borom dane xadd jaakum minallaahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdi bihillaahu man ittabaxa ridwaanahu subula salaami wa yuxrijuhum min azulumaati ila nuuri bi isnihi wa yahdihim ila siraati mustaqim andil nañ leen nun yàlla jële ci nun ak leer leer la ko tudde foofu ak téere bu wér képp ku ko topp ku ne ca na ko war a toppee mu gindi la jëlee la ci lëndëm tàbbal la ci leer teg la ci siraate mustaqim nga taxe te ëllëg baatub nuurun googu mboole mu fasore ne ñoo dàkkoo ci ne annal muraada bin nuuri huwa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa bil kitaabi nag alquran al karim nuurun googu yonent bi lay wax kon turu nuuru moom la njëkk am yaa ngi dégg looloo tax sax boo demee gis nga Sëriñ Tuubaa ci taysiir bi mu ne min ka huwa nuuru allasi la yutfa u mm-hmm. wal aali wa sahbi wa sudd man yutfi wu tagg ko ci turu an nuuru léeg nga dégg mu ni sayidina nabiyullahi sayidina nuuri rasulillahi ala nabiyillahi sayfillahi sayidina an nuuri rasulillahi léeg-léeg mu ne xalaa sayfillahi nuurillahi nga xam ne an nuuru turam la moom yonent bi salaa salaam tur woowu nag kañ la ko am li tax mooy taawu tur maa ngi maa ngi lay firi baatu an nabi mhm. ci ngay xamee li tax awlaa bil mu'miniina mi am fi siyim waaye an nabi u mooy tofop deuxième turam moom yonent bi waaye an nuuru ko jiitu luy dox an nuuru kaana lahu wala shay ama yàlla rek ka fi musa ne te nekk nduwu fi ak dara ba tey sax moom rek fi ne waaye ba mu feeñalagu dara nga xam ne moom rek ñum akuk leeram allahu nuuru samawaati wal ardi masalu nuurihi ka miskaatin fiiha misbaaxunil misbaax dafa toog ba mu soob ko lamma arattu hadiisu xudsi yi la mi ngi ci sirul asraar an uxliqal xalqa fa xabattu xabdatan min nuuri fa qultu laha kuuni muhammadan summa xalaqtu min nuuri muhammadan kullal asyaa yi nee na su mu daa toog ba mu soob mu bëgg amal mbindeef daa di tibb ca leeram nga ak leer foofu la foofa la turu yonent bi jëkk amee a nuuru ndax leer gee feeñal ak leer ci moom booba nag dara amagul lenn amagut leer googu siq ak boroomam ak jaamu jamono yaa at amagul weer amagul kalkin amagul kon sax bu naan milliards yi at ak nangam loolu waxin la rek ngir nit ki mën a xam waaye boobu ay at amagul ndax liy conditionné ay weer ak i at yàlla sàkk googu muy jant ak weer huwa allazi jaxala samsa diyaan wal xamara nuuran wa qaddarahu manasila li taalamu adada sinina wal xisaaba maa xalaqa lahu dalika illa bilxaqi nufassilu l ayaati li xawmin yaalamun loolu alquran wax foofu la amee woon turu an nuuru muy leer ak suñu borom ba tey min def amagut kon ba tey yow nit ki amagoo ba gëm ba naa la moo gën a yee ci yow loola mu séq koo yàlla duma ma ca ñëw waaye ma ñëw ci annabi u gis nga deuxième turam deuxième fonction bi mu am mooy suñu borom daa dem ba mu sopp leer goo gii tudd leer gi mu jox ko bu wax garaatum nubuwa jox ko turu annabiu mhm. gis nga tu bi yonent bi tudd annabiu benn mbindeef amagul ba muy làq garaat boobu loolu nag addis da ko saxal alxuraan saxal ko loolu dafa mhm. mat a xam yaa ngi dégg addis bii abi na ko ahmed nettali na ko imaam ahmed at tabaraani nettali na ko ba ci sax imaam buxaari andi na ko fi taariq muy xasanun saxiix may saratal fajiri radiyallahu anhu moo laaj yonent bi ne ko yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa dama la doon laaj mata wujibta làkka nubbu watan mm-hmm. xaala wa aadamu alayhi salaam bayna ruuhi wal jasad am na riwaaya bu ne mata kunta nabiyan bu dee riwaaya abu hurayra mooy mata wajabtu làkk an nubbu watu yëpp mu tontu wa aadamu alayhi salaam bayna ruuhi wal jasad dana doon laaj kañ la la yàlla jox maqaamam nubbu watu kon jamono jam amee maqaamam nubbu wa boobu lay tudd an nabiu ndax nee naa la maqaamam yi bee ko jox tur wi kañ lan la ko jox lañ ko laaj moom yonente bi te sax saxiix la yonent bi ne jot naa maqaamam nubuwatu tudd nabiwu te booba maam aadama sax sàkkagul ko kon booba benn mbindeef amagul moom yaa ngi dégg kon moo tax deuxième turam ginnaaw taawu tur wi annuuru mooy taaw bi tofali mooy and pour wax la ne la annabiu la yàlla jëfandikoo awlaa bil mu'miniina min anfusihim bu beneen tur ñëwoon bu dul annabiu awlaa bil mu'miniina min anfusihim di su ko mën a dégg li tax mu gën a yey ci ñëpp loolu laa lay firil mm-hmm. gis nga nag bi mu jotee maqaama moom i ba tey mbindeef amagut moo tax Sëñ wax na ko sax ci muqaddimaat bi la anta lesi ubtiita xidman nubuwatan mhm. wa aadamu baynal maa i watiini yan jëli giñ naa ci yàlla ni bu yàgg-yàgg te jiitu te ba dara xewagut yàlla jox na la maqaamam nubuwat te booba maam aadama mi mag ñëpp di sa maam ci saahir moolagun ko mu ngi ci diggante ban ak ndox nubuwatuhoo xablal baraayaa xaddin jalat loxu sabku xiinal jaddu fittiini yoxsanu làq nga darajay nubuwa xablal baraayaa te booba benn mbindeef amagul moom mhm. yaa ngi dégg jiitu nga ñëpp te booba sa maam sax moolaguñ ko mu ngi ci diggante ndox ak ban xusta taqaddumaka wal jaddun jadal fiitiinihi yaa man kafaani yal jadal làq nga sag jiitu baraw ñëpp te ki ni tudde sa maam ci saaxiir muy maam aadama mi mag nit booba moolaguñ ko mu nekk ci maqaamam nubuwatu googu tudd an nabiu léegi nag lan moo waral mu gën a yeey ci ñëpp bi mu nekkee foofu nag ci nabiu moom nuuru googu am maqaamam nubuwatu tudd nabiu la soob yàlla ñaar première mooy yàlla sopp ko ba cofeel gi mu am ci moom tax mu bëgg sàkk mbindeef yi fi ne mbindeef yi yàlla leen sàkk ngir sopp mu sopp Moustapha mhm. ñëpp ko saxal yonent bee ko njëkk a saxal addis bii alxaakim andi na ko mu ci mustadrak ibnu kashir andi na ko ci albidayati wa nihaaya ci jusu saani bi neena na maam aadama alayhi salaam keroog ba mu nekkee àjjana ba yàlla ne ko lekkal lépp waaye wala taqraba haatihi shajara yaag sa soxna mhm. fa takuna min adh-dhalimin garab gi daal laay aaye ngeen jege ko ban ko jegee ba lekk ko ba sanction ba ñëw ban ko génnee àjjana ba muy tuubal suñu borom la ko doon tuubal ci dara yunti yàlla Muhammad nee na yàlla laaj ko ne ko foo xamee kooku mu ne ko bi nga ma bindee muul ci man sag ruu wa nafatu fii min ruux yi bi ma siggee damaa xool aras gis nga bind sa tur lëkkale ko turam laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ajjana it ba ma fa nekkee kuraar bu ma jaar palaat bu ma xool miir bu ma xool gis naa nga lëkkale sa tur ak turam muy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah wa fil jinaani wa suquuf huwa allati faaqa siwaax min albaraya bi huda ba bada kat bu suma fi xarsika almuhassami wa fi ljinaani wa suquuf wa fi lwujoohi walkuhuuf wa birrimaahi wa suyuuf xalaxa kulla sanami moom la seen bi wàcc jës bu bi mu ni ko ma xam ne ko kii koo fonk la aadamaay wax de addis baa ngi ci musadrak ci xaakim andi ko fa mi ngi ci albidaatu wa nahaa ci gisu saani bi yonent bi nee yàlla ni yàlla ni maam aadama sadaqta yaa aadama hmm. ahabul annahu ahabul yaa ngi dégg wa isan sa alta nii bi xaqihi daa ne ko faqad xafirtu lakk daa ko yaa aadamu law laa muhammadun maa xalaxtuk mhm. wax ja ñëw na mu ne ko aadama wax nga dëgg de kii de ku ma fonk la mboole mbindeef yëpp moom laa ci gën a sopp daane ne ko comme ñaan nga ma nag ci àqam ak ci darajaam yow moom jéggal naa la bis ni tey na yëgal ni bu du woon ak muhammad du ma la sàkk kon buñ sàkkutoon aadama ñun waxaale wunnu ndax ñun ñu ngi ci biir aadama yaa ngi dégg mhm. kon ne moo tax ma sàkk leen te ahabul xalqi ila yàlla ko wax fexali af'ala la mm-hmm, mm-hmm. fexali af'ala saa yu ñëwee ci grammaire bu fekkee laam nga ci teg yaay faahil ji mm-hmm. su fekkee ilaa nga ci teg yaay mafool mi su mu borom waxul ne moo a sopp donte yonent bee gën a sopp ñëpp yàlla waaye loolu du condition mu sàkknu condition mu sàkknu lan la moom laa gën a sopp kon sopp ko yàlla sopp mooy condition mu sàkknu waaye nekkul ne sopp gi moom yonent bi sopp yàlla mooy condition mu sàkknu ndax fexaali ahaba su ci laam toppee ma yaay faahil ji bu ci ilaa toppee yaay mafool mi yàlla dani moom laa gën a sopp ñëpp sukkandiku ci sopp ci sàkk leen loolu sin bi saxal na ko min nuurihi kullu nuurin saatuhum bi sana nuuri nujuumin wa nuuri samsi wal xamari mhm. wa huwa moom leer googu alxabibul lasi xolixat li ajlihi xolixat xalaayiqullaahi kal amlaak wal basari alxabibu mooy soppe ba nga xam ni li ajlihi ngir sopp ko damiir ji day delloo ci xabibu xoli moo tax yàlla sàkk mm. xalaa iqullaahi kal amlaak wal bashari noonu ko sëriñ bi saxale sax sa turandoo sayid sayid sayid seen haj malik si mm-hmm. wax na ko wama xalaqa rahmanu mm-hmm. shay'an min nafsihi mm-hmm. siwa sayidal mahbudi wa huwa habibu gis nga nee na yàlla sàkku dara dara ngir boppam lu mu sàkk da koo sàkk ngir yónente bi ngir wa huwa habibu gis nga baatum habibu la indi gis nga ngir cofeel ga kon premièrement li tax mu gën a yee ci yow mooy moom sopp gu ko yàlla sopp moo tax nga mën a am te nga ne naam ne fa te yow loo rëy rëy rëy la tax a am a rëy. fuuf fuuf kon li tax am xam nga mu ëpp ci mhm. kon sopp gi yàlla sopp yonent bi moo tax mu amal la muy benn. Mhm. waaye yëmu ca bi mu soppee yonent bi ba bëgg laa amal itam leeram gi la amale moom mooy mooy mooy matière première bi tax nga am nga xam ne leeru nabiyu mooy turu an nabiyu mhm. ci la ñu sàkke te loolu addi si ko saxal bari na addis abdul jabir ibn abdallah dégg nga mhm. mu ne yonent bi moo nekk inna allaha taala xalaqa xablal asiyaa yi mhm. noora nabiyyika min noorihi mhm. ne ko man nettali la ndax xamoon nga lan la yàlla njëkk sàkk njëkk benn mbindeef mu ne ko déedéet mu ne ko leeru ko sa yonent bi nga nooral nabi yi ka nag la ko wax wu ko nooral rasuli de yaa ngi dellu ci baatu nabi gi ma lay wax an nabi gis nga nooral nabi min noorihi yaa ngi dégg addis ba addis ba jeex ne ko ci ci la sàkke mbindeef yi boobu addis xam nga jaabir ibn abdallah moom la indi addis boobu it mag ñëpp moom la nu saxal yaa dégg dégg nga sëriñ bi saxal na ko waaye sa turandoo sax dégg nga bu ne wa innahu is aradallahu nas atana abana min nooran nabil xalami gis nga noora an nabi xalami mhm. gis nga ba tey noora nabi mhm. kon an nabi u mhm. bi mu bëggee amal mindee fii nee na la feeñal ak leer ca leeram nga kon turu leer la njëkk tudd waaye bi mu ko ci la jox ko maqaamam nabi yu muy noora an kon léegi an moom kon mooy première matière bi mu feeñale mindee fi gis nga yaa ngi dégg kon baatam an nabiwu li tax yàlla bàyyi yëpp ni an nabi u awla bil mu'mini min anfusihim kon tur wi daa am lu muy teg yaa ngi dégg gis nga addis boobu léeg-léeg sax boo demee ci ñiy wax ci wàllu addis rawatina sax ñi gëmul tasawuf dañ koy dax yi fal mhm. ba naan mawduuhun maksuub waaye lu ko gën a doon njuumte amut ndax ñii rek mënuñoo d'accord ci njuumte dëppoo ci ca jamonoy mag ña loo xam ne imaam Rafahi imaam di ñoom imaam Xasaali ñoom wàcc ba ci Seydina Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ñoom radiyallaahu anhu ba ci Seydina Cheikh Ahmada Tijaani ñoom ñëw ci réew mi ba ci Cheikh Amal Fuuti ba ci ñoom maam alaaji Maalik ba ci ku tedd ki Seexna Seex Bamba ñëpp saxal maxnaam addis boobu yi nga bëgg a def addis boobu dax yi xam nga ñàkk xam ci la yem seen wilaaya waaye seen xam-xam rek seeni jumtukaay yi ñuy sukkandiku ngir wéral addis rek ñoo ëpp fuuf jumtukaay yi gaa yi weddee yaa ngi dégg te foofu it dina am lu ma fi leeral tuuti mooy ñun ñii di jàng ci wàllu xam-xam di gëstu faaw nu gën a góorgóorlu ci li ñuy gëstu mhm. rawatina ñun ñuy dund tasawuf lu ko may danañu weddi loo lu lu wërtoon weddi mooy daan ay addis ak aaya ñu ne ñu mat ma mawdoo maksuub ñu sànni ko fekk lanu ko teg mooy ñàkk xam leen ne ak ñàkk gëstu ci li ñuy jàng mm-hmm. ndax bari na lu nu daxiifal bari na lu nu sànni jàpp ne du du wér fekk lu ko gën a wér amut te yow da nga mugg sax dugg ci googu gaal te li la koy teg mooy sa gëstu dafa des ak sa góor góor ci li nga ne te nit li mu nekk da ko war a xam loolu dama ci jox benn exemple gis naa jenn wax ji Ibn Arabi al-Atami wax mu Ibn Arabi al-Atami te wax ko ci Fusuusul Hikam mm-hmm. wax joogi sax ñëw na ci téere yi ñëw na ci tabaxaatul awliya ba ibnu mulxin te ibnu mulxin moom def koy taxarif mooy di mooy kan dafa bokk ci ay spécialiste am dañ ne muhaddis la faqih la dooga doon xaarif billah daa dégg fiq ba noppi spécialiste wu ci addis dooga doon nag xaarif billah téeréem boobu ñu tabaxaatul awliya indi na ca wax ja ñëw na sax ci tabaxaatul kubra ba si abdul wahab saharani gis naa ko sax ci téere bu gën a jege boobu ndax mooy téere bi ñëw anafaxaatul miskiya fii siiratin mbakkiya nga xam ne Mouhamad Abdullah ibnu Abdurahmaan alxalawi moo ko def bu gànnaar di ci taarixal Serigne Touba waaye di ci leeral lu bari ci tasawuf boobu tiir tiir bu am solo la xam naa ne sax dinaa la ci jox benn nga mhm. ngi dégg ah, ndax baax na ci gëstukat loolu dana waaye gis nga Ibn Arabi Atimi da caa wax lu am solo mhm. loo xam ne ñun jàng ñu toll ci jàng di nab nabi mhm. nañ ci bàyyi xel nee na saxaxtu minhu xiddata ahadisa xaala al xulamaa bidax fiha fa axastu bi qawlihi sallallahu taala alayhi wa sallam walam yabqa hindi shakkun fi ma qaalahu wasaara hindi min sarxihi saxihi ahmalu bi xam nga Ibn Arabi atami lu mu wax dani gisante na maa yónente bi yàq satan ndax boo demee ci téere boobu euh, nafaatu miskiya moom mi ngi ko indi ci bunt bi mu tuddee jawaasu ruhyati nabi yàq satan possibilité gis yoonante bi jaxran ni mënee nekk ci lislaam bunt boobu muy traité loolu ci la ko indee ci page 98 la indee wax ji Ibn Arabi wax nga xam mi ngi ko wax ci fusuusal ikam waaye dafa wax ni Ibn Arabi nee na gisante na maa yonut bi yaqasatan yaa ngi dégg laaj ko ab jumla ci ay addis yoo xam ne borom xam-xam yi xolamaaw addis yi d'accord nañ ci ne daa daxiif wérut ma laaj ko ko ba mu wéralal ma ko ne ma amul lu ko gën a wér ba deseetuma sikk sàkk ci ak wéram yëm ma ci aw ñàkk sikk sàkk ci ak wéram waaye dama koy jëfandikoo ci sama sariha te loolu lu wér la yooyu nag addis bu mel ni addis Abdullahi ibnu Jaabir Jaabir ibnu Abdullahi bi da cee bokk moo tax yooyu nañ ci bàyyi xel yaa ngi dégg mm-hmm. kon premièrement li tax yonent bi gën a yey ci ñëpp mooy mooy ki nga xam ni sopp ko cofeel gu ko yàlla sopp mhm. moo tax mu amal deuxièmement mooy bi ko yàlla soppee ba tax mu bëgg amal itam ci ak leeram la amalee lu mu amal mhm. koo xam ne nag buñ ko sopputoon doo am ba nag bi ñu ko bëggee amal matière première am bu amutoon doo am kookaa la gën a yeey ci sag am loolaa tax yow ci sa jëm jëmmi bopp li la sa bopp di gën a yeey yeey ki sa bopp rasulullahi ko ëpp àq ci yow ndax lu yëngu ne la ko yëngal ko ëpp doole moo tax yàlla jëfandikoo baatab annabiu awla bil muminina min anfusihim te loolu moom ci jëm boppam waxal na ko boppam moo tax mu wax ne maa min muminin ila wa ana mhm. wa awla naasi bihi fi dunia wal axirati daane iqra'u in shihtum annabiu awla bil muminina min anfusihim daane wa ayuma muminin taraka maalan fali waarisatihi wa hasabatihi man daane wa in daynan aw dayaahan fal yaxte nii wa ana mawlaahu rawaahu abi hurayra yonent bi moo ne jullit bu mu mën a doon aji gëm ju mën a doon man nii may ki gën a yey ci moom ma ëpp àq ci moom ma ëpp war ma ci moom ma ëpp ay responsabilité ci moom maa ko war a gënal boppam daat ne nag ku ko bëgg a vérifier jàngaleel sa bopp aaya ba ca alxuraan daal di indi aaya bii nuy waxtaani muy annabi awlaa bil mu'miniina min anfusihim moom yonent bi de mhm. daane looloo tax sax képp ku fi bàyyi koo te bàyyi fi alal ña la war a doon tey say mbokk ñoo ci gën a yey waaye soo fi bàyyee bor te bàyyiwu fi alal ju mën a fay bor ba wala nga bàyyi fi njaboot gu dëgër gu tan laaj taxaw te bàyyiwu fi ñu ko mën a taxaw nañ ma seet si man ndax may kilifa ak ñëpp mhm. yi dégg nga xam ne bu tëlee googu amee rek maa fi sës ndax lu tax maa leen gën a yeey sax ci seen wayjur yooyee ngeen ñàkk maa leen gën a yeey kon ci seen njaboot googee ngeen bàyyi mhm. lu tax parce que moom mooy première personnalité yaa ngi dégg mhm. loolu moom moo ko wax ci hadiisam tax sax Ibnu Jarir at-Tabari bi muy tënk wax ja dafa wax ni kon kat ci lii laa xamee ni fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahsamul xalqi minnatan alayhim min kulli ahadin mhm. nekk yonente mooy xéewal gi gën a rëy waaye mooy ki gën a màgg ab cër ci kanamu mbindeef yi ngir lan yàlla moo ko jox cër boobu yi moo tax mu ni annabiyu awla bil muminina min anfusihim mhm. gis nga Oustaz Maodo mhm. loolu sax yàlla da cee jox ay exemple yonente bi gën a yaay gim gën a yaay ci ñëpp moo tax daraja yonente yonente bi kon war di la ab bu xasee ba réere rek yonent bi taxawaay bi mu am ci moom mhm. bu xasee ba réere yonent bi taxawaay bi mu ko war a jox lislaamam day yàqu moo tax thème bu mel ni am solo mhm. faaw ñu delluwaat ci baas yi mhm. moo tax émission bi émission bu am solo na day waxtaane baas yi lislaam te yonent bi bis buñ ko réeree rek yépp la ñuy réere rawatina sax mbirum tasawuf parce que lépp moom mooy fondement bi boo xasee xam fondement bi nag leneen du la jaaxal waaye ba la bi réeré moom loo tabaxaat du baax. waaw doo am fooy taxaw. doo am fooy taxaw. doo am fooy taxaw. moo tax thème bu mel nii am na solo. Mhm. xoolal riyaay bi yàlla da ko misaal ba. yonent bi dong moo am àq nga taxaw di julli dégg aw turam moo xam imaam moo ko wax moo xam da nga koo déggee ci ku bokkul ci julli gi. nga ni sallallahu alayhi wa sallama doo ko àggale loo loo doon def te sa julli du. te julli gi day dara ci sikk day wér kéng loolu waxuma la sa ngir yëpp ki d'accord laxdari bii ñu commencé rek andi na ko. Eh, sëñ Tuubaa ci jawharu nafiis nga xam ne da cee da cee bayaat eh, la dafa ko tëggaat dafa tëggaat ndax la wahaakasa habdun ala xayril basar salla li samhi zikrihi mimman zakar muhammadun salla alayhi llaahu musalliman wa kulli man walaahu xad kaana daaka hamdan aw sahwan hara aw fi juluusin aw qiyaamin xad jara nee na waa ji julli ba yàgg mu dégg ku tudd yonente bi sallallahu alayhi wa sallama nee mu daal di julli ca moom nee na moo xam bi mu koy def moo ko tey wala sax dafa tàmm sallallahu alayhi wasallam fu ñu tudd yonent mu def ko te tëyu ko ñaar yooyu ñoo ci yem moo xam day day taaya moo xam daa taxaw moo xam day jàng alxuraan fu mu ko mën a fekk mu wax sallallahu alayhi wa sallam dara du yàq ci julleem na yonent bi am àq mel noonu julli kenn amu ci àq jooju ku dul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon kooku àqam rëy na yaa ngi dégg imam Safi yi sax ñoom farata lañ ko def ñoom ci seen ngir ma maam boo dee julli bu dégg sax ku wax Muhammad nga war a wax sallallahu alayhi wa tey ko bañ koo wax sa julli mën na caa yàqu ngir wax la dara jaam jure waaw fan ko teg fan ko teg te loolu am na lu ko gën a garaaw loo xam ne alxuraan addis moo ko saxal yonent bi akam awlaa bil mu'mini min anfusihim gën a yaay gëm gën a yaay ci jullit ñëpp loolu nag li nga ciy xamee mooy dafa représenté yàlla ci yow jaam bi mhm. yow yow jullit bi yonent yi dafa représenté yàlla ci yow mhm. looy jot ci yàlla ak looy am ci yàlla ci moom nga ko mën a jëlee moo tax saa su nekk bët boobu da bu ko fàtte loolu la la yàlla di jàngal faaw nga xam ko yaa ngi dégg mm-hmm. moo tax ku yonte bi tuuti ci yow mënatu am ci yow yàlla dara ci lu wér lii faaw nu xam ko moom fokk bu rëy ci yow nekk sa asl nekk sa cosaan nekk sa asl sa cosaan sa asaas nga doog a mën a am ci yàlla dem ci yàlla mooy essentiel maanaam mooy base bi mooy base bi loolu dafa mat a xam yaa dégg mais am na lu gën a garaaw sax di julli ba yàgg nga dégg turam wax sallallahu alayhi wasallam ci annabi awla bil mu'mini min anfusihi am na lu gën a garaaw yonte bi rek àqam toll na ci boo doon julli ne ci biir julli gi mu woo la da ngaa war a dagg julli gi wuyu ko waaw alxuraan a ko saxal ak hadiis fële ca lan faal suñu borom dani yaa ayyuhal lazina amanu stajibu lillahi wa li rasuli isaa daxaakum lima yuhyikum waxlamu anna allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi wa annahu ilayhi tuxsaruun yéen ñi gëm yàlla ñun la concerné saa yu yàlla wootee wala yonent bi ni ngeen ni ngeen ko wuy ji ci li leen di dundal gis nga hadiis boobu daa am daa am daa am lu ca xew te lii ci xew nii abi hurayra nettali na ko xasanun saxiix la yaa ngi dégg mhm. Mhm. imaam tirmisi indi na ko ci sunan bi nee na ubay ibnu kaxb moo doon julli yent bi salaa salaam romb ubay muy julli mu woo nag daggul julli ga daa wayefal julli ga ba sëlmal doogu wuy ji yent bi ne ko yaa ubay yaa ubay mu ne ko ah mu ne ko lan moo tax lan moo tax wuyu suwoo ma li ma li tax wuy suwoo ma is daxawtu ka jamono ji ma la woowee mu ne ko inni kuntu fi salaati damaa nekkoon ci biir julli yonent bi ne ko afalam tajjid fii ma uhiya allahu ilayya an istajibu lillahi wa li rasul isa daxaakum mhm. xanaa dangaa jot ci aaya bi yàlla ni yàlla ku yonentam suñ leen woowee li ngeen doon def dagg leen ko te wuyu ji ko mu ne ko aha kay ballaa wala ahuudu insha allah daan ne ko jot naa ci kay bis ni tey duutuma dalati yonent bi nga xam ni ubay nee na ko dama doon julli moo tax dagguma ko mu ne ko xanaa jàngoo aaya bee kon wan na ko ne ko jëmmi aaya bee booy julli sax ci la ngi dégg ubay nag kon de duutuma ko def te loolu addis la boo xam ne xasanun saxiix yaa ngi dégg ci biir aaya bi sax da nga ciy gisaa sew-sew ba garaaw xam nga suñu borom daan istajibo lillahi wali rasuli mhm. ba noppi ne isaa daxaakum te waxul isaa daxwaakum loolu grammaire du ko nangu bu du woon ak alxuraan mhm. parce que tasniya lisim la tasniya lisim boo tuddee ñaar boo ko dee andil damir da nga koy tasniyal mhm. ni nga koy xamee mooy fële ca kaw ca ca ca lanfaal wala laxaraaf boo koy jeexal dafa xam ne huwa allati xalaxakum min nafsin waxidatin wa xalaqa minha zawjaha mhm. li yaskuna ilayha falamma taqasseha hamalat hamlan xafifan fa mhm. marat bi falamma asqalat lu mu ko teg waa laaha rabbahuma mhm. la in aataytanaa saalihan la nakuunanna mina shaakiriin ci lu wér ci lu wér booba dafa wax ni maa leen bind ci benn bakkan muy maam aadama génn ci awa couple bi nag lay continuer di wax daan ñoom ñaar ñoom ñaar ba tax mu ne daxawaa nu woowee ñoom ñaar seen borom même baat bi daxawaa lu tax aadama du awa awa aadama lenn lanu moo tax bi muy wax daxaa waxut daxaa daxawaa la wax foofu mhm. waa fii nag la moo tax mu ne istajibu lillahi tudd na yàlla wali rasuli ba nopp na isaa daxaakum te waxut isaa daxawaakum waaw damir ji koo koy moomale mhm, mhm, te li gën a garaaw mooy yéen ñi jàngale naxu da ngeen indi benn qaahida daa am al loo xam ne al qaahida naxwiya la mooy réegalu naxu la dañoo wax ne ad damiru yahuudu ila aqrabi maskurin saa yun indee ci biir jumla ñaari mbir wala ñaari tur ba noppi defal ko benn damir kan mujj a tudd moo gën a yey ca damir ja ca damir ja waaw xam nga loolu loolu ala kulli la mhm. te te bi la mi gën a yey ci woote bi xam nga wax wooteeb yàlla mooy wooteeb yonent bi wooteeb yonent bi mooy wooteeb yàlla kaddug yàlla ci ci jullit bi kaddug yonent bi la koy jàppe yonent bi kaddum ci jullit bi bu ko jàppul kaddug yàlla du ci jariñu ah kay faw yaa ngi dégg moo tax isaa daxaakum la jëfandikoo te waxul isaa daxawaakum mais am na lu ci gën a garaaw gi fële ca Fathi inna yu bàyyi xoon a ka mhm. innama yu bàyyi xoon allaha yadullahi fawqa aydihim jaayante ga dani ñi jaayante ak yow waxul ka innama andiwul sax xarfu tasbih mu doon musabbaha mhm. waaye innama la andi muy xaalatu asriya ñi jaayanteeg yow sa dëgg-dëgg yàlla la noo jaayanteel te boobu yonent bi lañ jaayanteel mhm. ba ne fawqa aydihim jaa gën a garaaw yaddullaahi fawqa aydihim waxul fawqa aydikum de te te départ wax ji mu xaatab la jëfandikoo yu bàyyi xoona ka kaw googu xam nga kon damiru mu xaatab la mm-hmm. bi ñuy wax kon waxul fawqa aydikum mu ne fawqa aydihim lu tax fawqa aydihim da cee génne loxo loxob yonente bi ñoom seen loxo ya ñoo ngi ko tegoon ci kaw loxo bi yàlla kon dafa setti loxo bi yonente bi ñu teg ci seen loxo mhm. daane yéen ñooñee nag ni ngeen xam ne seen loxo ba tegoon ngeen ko ci kaw loxo bi yàlla foofa masharul ilaahiya la mhm, mhm. waaw moo tax waa altasu di ko indi kon li nga fay déggee mooy daraja yonente bi maqaamam yonente bi kaweeg yonente bi yaa ngi dégg moo tax sallallahu alayhi mooy ki ëpp ci mbindeef yi maanaam daraja wasalli yaa sa nehmati ala rasuli rahmati miqlaaqi baabin niqmati sababi kulli nasami moo tax suñu tubaab ne moo sabab amul ñëpp léegi nag koo xam ne nag moo la tax a am ba noppi ci ci sopp koo tax yàlla amal la kooku moo gën a yey ci yow moo tax na annabiyu awlaa bil mu'minina min anfusihim moo tax ustaas Maodo mhm. jullit bu ne yonent bi gën a yey gi mu gën a yey ci yow lépp lu dul moom te nga war koo xam yaa moo tax yàlla gàll na la kat ñeenti mbir mhm. yoo xam ne da nga koo war a doxale sa digg yonent bi mhm. ñeenti mbir yoo xam ne bis boo ko respecté wut sa diggante yonent bi sa ngilut du wér moo tax moo tax aay bi waxtaane ko am na solo ndax dafa concerné ñun. annabi awla bil mu'min annabi awla bil mu'min min anfusihim ji. Hmm. yàlla génne na ci max naa mu tax ñeenti mbir yii képp ku ko respecté wu sa diggante sa yonente bi ngir wan ni moo gën a yey ci yow. sa nga accepté ko. accepté ko ba noppi règlement bi nga doxal ko. appliqué ko ko sa ngilu du wér. Hmm. première bi mooy gëm yonente bi. deuxième bi mooy bëgg ko ba mu gënal la lépp ak ñëpp. Hmm. troisième bi mooy nangu ko topp di ko roy. quatrième bi mooy maggal ko ak warmaal ko ak màggal ak warmaal lu taq ci moom lu ci nekk nag alxuraan ak sunna la première bi mooy gëm yonent bi mhm. képp koo xam ne gëmul yonent bi mënta gëm yàlla ala kulli alin ala kulli alin bala maa ñëw sax ci max naa moom dama leen njëkk ne yàlla insisté ci ne ni ngeen may gëmee noonu ngeen di gëmee yonent bi moo tax léeg-léeg sa gis ku juum ne man yàlla laa gëm gëmuma yonent bi loolu ko ko wax te ñàkk xam dañ lay xamal waaye boo ko waxee te xam da lay génn ci lislaam waaw ni ngay gëmee yàlla forcément ni nga war a gëmee yonent bi am na sax lu ci gën a garaaw boo gëmee yàlla te gëmoo yonent bi yàlla du nangu te boo nee gëm nga yonent bi automatiquement yàlla nangu ne gëm nga ko te loolu dinaa ko leeral ci alxuraan sunna moo tax daraja yonent bi lu rëy la ci nit ki mm-hmm. taxawaayam ci aji gëm lu rëy la yàlla dafa insisté ci gëm gi yaa ayyuha alladina amanu mm-hmm. aminu billahi wa rasulihi mm-hmm. yaa ngi dégg yéen ñi gëm na ngeen gëm yàlla wóolu ko moo ko yonent bi yaa ngi dégg fa aminu billahi wa rasulihi wan nuuri allati anzalna wala bi maa taxmaluna xabiir gis nga fële aminu billahi wa rasulihi mm-hmm. wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafina fiihi fallazina amanu minkum wa anfaqu lahumu ajrun kabir ca ca ca hadid waaye ba tey yaa ayuha allazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min xasaabin alim nuñ koy amee mu ni tuuminoona billahi wa rasulihi mhm. wa tujahiduuna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum xayrun lakum in kuntum taalamuuna fële ca safi chaque jour danaan pour ngeen gëm da ngeen may gëm man yàlla ak yónent bi ni ngeen may gëm da leen di taqalee mhm. te dinaa la wax loolu lu ko waral yaa ngi dégg waaye dama lay wax yim ko indi ba mhm. wax la lu ko waral na sax ci buy définir ngëm dëgg dëgg ab jullit mooy ki boole gëm yàlla ak yónent bi gëm gu wér lu muy def doo ko def innamal mu'minuuna innamaa haadaa taxaw sariya la al mu'minuuna alif ak laam istixraaxa allazina aamanu alif ak laam istixraaxa la kon dëgër na innamal mu'minuuna allazina aamanu billahi wa rasulihi summa lam yartaabu doog ne wajaahadu bi amwaalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum saadiqoon fële ca furqaan mu ne innamal mu'minuuna wala wala bala ngaa dugg furqaan muy nuur innamal mu'minuuna allazina aamanu billahi wa rasulihi encore wa isaa kaanu mahahoo ala amrin jaamihin lam yashabu hatta yastaasinoohu inna allazina yastaasinuunaka ulaika allazina yuminuuna billahi wa rasulihi encore fa istastaasanooka li bahdi saxnihim fahsan liman sihta minhum wastaxfir lahum wallaha inna allaha gafuru rahim te waxoon na leen fal yaxsari allazina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum asabun alim di insister ñi ni pour ngeen gëm ma man yàlla da ngeen may boolee gëm yonent bi salaa salaam xam nga lu tax boo gëmul yonent bi mënoo gëm yàlla. du am porte. forcément moo tax loolu ku koy wax na nga ko na nga ko jubbanti yonent bi ku ni gëm la nii gëmee yàlla. lu tax sarti ngëm juróom-benn la. alxuraan da ko indi. Mhm. juróom-benn yëpp pour nga am ko dangaa gëm yonent bi juróom-benn yi juróom yi da ko indee ndoo ca mhm. lay sal birru an tuwalloo wujuhakum mm-hmm, mm-hmm. xibalal mashriqi wal maghrib walakinil mm-hmm. biru daal koy lii man amana billah wal yawmil axir wal malaikati wal kitaabi wan nabiin juróomi ñëw mu des gëm dogal gëm dogal mu détaillé ko daa ne inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar ak wa xalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira qad jaxala allahu li kulli shay'in qadra wa in min shay'in illa hindana xazainuhu wa ma nunassiluhu ila bi qadarin maalum wa kullu shay'in indahu bi miqdaar moo xam mooy bu neex ba moo xam mooy bu naqare ba moo tax mu ne ko wa in yamsaska llaahu bi durrin fala kaasifa lahu ilaahu mm. wa in yamsaska bi xayrin fa huwa ala kulli shay'in qadir bu dee ba ca yunusa wa in yamsaska llaahu bi durrin fala kaasifa lahu ilaahu wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yashaau min ibadihi wa huwa alxafuru rahim loolu mooy lu am yàllaa ko dogal alaakulli daan moo xam dogal bu la neex la diw yiw wala muy safaan ba xamal ne yàlla rek la tukki loolu da nga koy gëm comme juróom yi juróom benn ponk la gëm yàlla gëm yonentam yi gëm malaayika yi gëm téere yi jóge asamaan wàcc ci yonente yi gëm bis penc ak la fay xew gëm dogalu yàlla bu neex ak bu naqari xam juróom benn yi mooy mooy surutu ngëm mm-hmm. pour nga ñu mën a wax nii boo ko gëmandoo am nga ngëm mm-hmm. gis nga juróom benn yooyu mënoo cee gëm benn lu dul ne da gëm yonente bi li tax mënoo gëm yàlla fii gëmoo yónente bi amul kenn ku yàlla présenté boppam ne la maa ngi nii amul kenn ku yàlla woo téléphone di wax ak yow mhm. envoyé wul kenn audio envoyé wul kenn benn message yàlla yàllaam ji ni mu bëggee nu gëm ko ak ni mu bëggee nu xamee ko yónente bi la ne ko wax ko waaw kon léegi yeg boo gëmul ne yónente bi li may wax waxee yàlla la ndax da gëm ni kon yàlla moomaay yàlla mënta ne doo am foo jaar amoo foo jaar moo tax yéefar yi sax buñ ko mosaan wax kuy yàlla nangam yàlla au lieu que mu génn naan maa ngi nii déedéet danaa yónente bi xul tontul ni huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad moom mooy jàngale yàlla moo naan yàlla mi ngeen di wax mooy ki nga xam ne kenn la moom rek kay kilifa gi ñëpp moom lañ jublu te jubluwul kenn jurul kenn kenn juru ko amul nawle xam moom mooy wax pour nga gëm ni loolu muy melal yàlla wér na daa fekk nga gëm ni moom lu mu wax dëgg la ala kulli aal ala kulli aal <laughs> moo tax mënoo gëm yàlla fekk nga gëm yonente bi lu wér nga wax loolu lu wér la parce que yàlla lépp nu koy gëmee yonente bi la moo ko jàngalee lépp nun koy xamee yonent bi moo ko jàngale ci ndigalu yàlla mm. waaw boo gëmul ne yonent bi yonent bi wax jooju noo koy gëmee kon mënoo gëm yàlla te fekkul nga gëm yonent bi mm-hmm. looloo tax yàlla di insisté gëm leen ma maak yonent bi parce que yàlla laa gëm te gëwuma yonent bi ku ko wax sa ngëm wérut mm-hmm. yonent bi sax ngay gëm doog a mën a gëm yàlla yaa ngi dégg parce que si représente moom lay jar moo représenté yàlla ci yow moo tax nee naa la waxtaan yi dañ koy waxtaan ndax ñun jullit ñi faaw nu xamaat yonent bi li mu doon ci noonu mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi waaye bëgg koo jàppe jaam simple rek comme ah, ñu woyofal ëpp naa def beneen bi ki topp mooy gëm malaaka yi kenn mosu fee gisu malaaka yi mm-hmm. gëm gi nga gëm yónent bi moo lay jox nga gëm malaaka parce que yónent bi moo nu jàngale malaaka yi am nan ci biir téeram bi moo indi baata bu wa malaa'ikatihi mm-hmm. indi baata bu yónente ya mm-hmm. yaa ngi dégg moo daan toog ba yàgg am ku ñëw laaj ko luy imaan luy lislaam luy lisaan mu waxanteeg moom ba mu dem mu ni saxaaba yi xam ngeen ki fi ñëwoon ñu ko dee mu ni jibril la Ah, ci hadis Omar ba ci hadis Omar ba mhm. kon ñoom xamuñu woon ni Jibril la mhm. kon moom moo ne leen Jibril la kon automatiquement pour ñu gëm ni Jibril la daa fekk nu gëm wax yonente bi mhm. yaa ngi gëm ni yonente bi lu mu wax dëgg la moo tax ñu gëm ni aaya bi sax Jibril la ko andi parce que Jibril ñëwul naa leen maa ngi nii ñëwul di ci wax ak kenn yonente bi lay waxal te ñoom gisuñ ko it nag wala buñ dee gis jëmm sax du yor jëmmi malaaka yonente bi moo naa leen ki ngeen gisoon nuruwut li li mu doon du ko diw la Mm-hmm. kon automatiquement pour nga gëm sax ne malaaka am na yow jullit bi daa fekk da ngaa gëm rasulullah gëm ay waxam da ngaa gëm ay waxam ndax que moo la ko informé mm-hmm. moo tax man la sa ngëm dafa tënku ci gëm yonent bi mm-hmm. moo tax loolu nañ ci dellu moo tax yàlla di ci insisté moo tax àq ji ku gëmul yonent bi am diine ñaareel ponk baa ngi ne muy gëm malaaka yi ba ci gëm yonent yi amul benn yonent mun fekk ñun déedéet aadama ba ci isa déet ñoo mujj di ñoo mujj di te fi ñu toll ni isa mi fi mujj sax fi ñu toll nii donc boo waroon wër àdduna wala ngaan kap doo fa gis ku fekkee Isa mm-hmm. automatiquement parce que forcément faw mu dund deux mille koo fii gis ku dund pour nga gëm ni kon aadama amoon na ba Isa am na da gëm waxi yonent bi rek ndax moo la ko informé mm-hmm. yaa ngi dégg moo ñëw wax noonu yaa ayyuha allazina amanu aminu billahi wa rasulihi mm-hmm. moo na wax ne wallazina yuminuuna billahi wa rusulihi àgg na sax ci nenu képp koo xam ne gëm na yonente yi walam yufarriqoo képp koo xam ne gëm na ma gëm yonente ye te laa nu farriqu bayna ahadin min mm. bañ maa tàqale yonente ye gëm ne yonente yëpp ay yonente la ni man kooka danañ ko dig pay gu rëy waaye ku ko gëmul sax dañ laa tëkk mm-hmm. mooy mooy bi ne noominu bi baadin wa nakfuru bi baadin wa yuriduuna an yattaxisu bayna dalika sabila ulaika humul kaafiruuna xaqa mm-hmm. wa axtadna lil kaafirina xasaban muhina daa ne ku tàqale yonente yi sax gëm kii gëmoo kii yëfar lan day jàpp loolu yonente bi moo na ko informé moo nu gëm loo yonente yi yaa ngi dégg kon buñ gëm yi ne yonente am nanu gëm ni cent vingt quatre mille ak trois cent treize ak vingt cinq yi ñëw ci alxuraan nu gëm ni ay yonent la ndax seeni tur ko ni ñi ñëw bi parce que information bi dara jottali wunu ci lu dul mhm. ba mooy gëm bi gëm téere yi mais nun téere yi cent vingt cent quatre téere yi wàcc yëpp alxuraan da nga lañ fekk di mhm. sax moo na ci jottali di moom yonent moo na informé ne yi cent quatre la nu alxuraan da koo résumé ko daal daan wax yonente bu nekk la wàccoon ci moom fekki wuñu ko te buñ ko gëmut suñ ngëm du mat waaye pour ñu gëm ko dañoo gëm ki nu ko wax mooy yonente bi man caa sukkandiku man caa sukkandiku mooy aslu bi mooy aslu bi nga wax mooy asaas bi yaa ngi dégg mm-hmm. ci ngay gëmi ne kon téere yi am nanu ndax da ngaa gëm yonente bi moo tax mm-hmm, mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi dégg noonu itam gëm dogalub yàlla yonente bi moo la jàngal ci alquran ne yàllaay dogal lu am kon iman boobu mooy àq boobu nga xam ne jullit bu ne da ko amal yonent mooy faaw nga gëm yonent bi pour sa ngëm yàlla wér ci lu wér a wér ci lu wér a wér yaa ngi dégg mm-hmm. ndax an nabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim moo tax sa imaan pour mu wér daa fekk dangaa gëm yonent bi ni nga gëmee yàlla ndax sa gëm yonent bi mooy représenté sa gëm yàlla parce que li ngay gëm ci yàlla lépp yaa ngi koy jële ci yonent bi salaa salaam ci lu wér muy benn point boobu deuxième bi mooy pour sa njullit mat bi ko gëmee faaw nga bëgg ko moom sopp ko ba mu gënal la sa bopp gënal la say waajur gënal la say mbokk gënal la mbindeef yëpp feeg àggagoo ca sa ngëm wérul te loolu alxuraan la de tawba mhm. dana ko xool waxal in kaana abaaukum mhm. wa abnaaukum mhm. wa ixwaanukum wa azwaajukum wa xashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuha wa tijaaratun taxsawna kasaadaha wa masaakinu tardawnaha ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihaadin fi sabilihi fa tarabbasu xataa yaatiya allah bi amrihi mhm. wallahu laa yahdi al qawma al fasiqin loolu gën a garaaw waxal ni li feek man yàlla ak yow yonent bi mhm. bëggagu leen ma ba ma gënal leen seeni baay seeni doom seeni soxna mhm. seeni alal seen famille seen seen mboolem capital yi ngeen am seeni dëkkuwaay àdduna li ci biiram li feek bëggu leen ma man yàlla ak yonent bi ba ma gënal leen ko seen ngëm matagut te sax na ku àggugul foofu na xaar mbirum yàlla mbirum yàlla mën naa wàcc yow te yàlla du gindi xawmal faasixiina mooy ay naafiq mhm. foofu sax aarifoona billaahi dañ faa tiit ndax mhm. ku ne xam na ni sababu sol bi mooy ña nanguwutoon a gàddaay yi mhm. yàlla ba ne kon ay naafiq la ndax li ni wax dëggu a ngi dégg waaye aarifoona billaahi dañ ne comme ñooñu attam naafiq lan am est-ce que kon yow jullit bi boo làmbee sa bopp ba gis ne ba fi mu ne nii yonent bi gën a lagula sa bopp mhm. gën a lagula sa ndey gën a lagula sa waay alali àddina gi sa a lagula ko est-ce que mhm. yow duggoo ci xawmul faasixiin ñoom dañ caa tiit te wax nañ dëgg comme yàlla nee na moom feeg boo am na loo xam ne yonent yàlla ma xam gën a lagula ko rek muy sa bopp muy alali àddina muy ndey baay ak muy njaboot ak lu mën a doon li feeg yonent bi gën a lagula ko te boo ko xamee boo la ko gën a lay xam nga ko boo la ko sa bopp te gisoo sa bopp loolu rek bul génn sa bopp ci xawmul faasixiin waaw mën nga cee dugg sax. da man nga caa dugg ndax la cay tax a dugg da koo wax comme la cay tax a wax na ko kone ne da ngay consulter sa bopp ci loolu rek ba am foota ne loolu laa garaaw bul jël mbir mi rek yemee ko yemale ko ke sa nu sol ba rek parce que yow gàddaay fekku la fi. Mm-hmm. comme gàddaay gi fekku fi fii ngay mën a xamee ba xam bu la fi gàddaay gi fekkoon da nga gàddaay yem déet ndax condition yi mu tudd ku gàddaay am na benn bu la ci gàllankoor waaw yu tax demoo yoo tax demoo moo xam muy aba ukum mhm. wala muy abna ukum doom mhm. wala muy ixwaanukum mbokk mhm. wala aswaajukum wala xansatikum famille ñii am wàllu alal jur amoon mënuñu ko faa bàyyi ñii tijaaratun mooy mooy commerce bu doon dox yaa ngi dégg seen dëkkuwaay lañ fa mënta baax ndax yooyu yëpp faaw nga bakko fa pour ko yonentam gënal la ko nga mën koo wan ginnaaw léegi nag yow nattal sa bopp ci yooyu li fii benn ci yooyu am na ci boo xam ne bu taxawoon yonent yàlla Muhammad taxaw nga jënd ko yonent yàlla Muhammad bul génn sa bopp ci xawmal faasixiin moo tax jullit jafe na. lu leer nga wax. te yàlla ci yonent bi la ñuy àtte. Mm-hmm. yaa ngi dégg. ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi looloo tax sax moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal na boobam ci hadiis boo xam ne muttafaqun alayhi la ñëpp ci d'accord mi Buxaari Muslim laa yuminu ahadukum mm-hmm. hatta akuna ahaba ilayhi min ahlihi wa walidihi wa waladihi wa naasi ajmahina fi riwaayati dañuy gënal ñëpp. kenn kenn am ngëm gu mat laaw naa fiyatu lay gën si la. Mm-hmm. kenn ci yéen mënta am ngëm gu mat moo tax Ibn Abbas nee na loolu mooy hadis bi mu tuddee Kamalul Iman li tax sa ngëm mat li fi àggoo ci bëgg ma man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba ma gënal la sa ndey gënal la sa baay gënal la sa njaboot gënal la àddina ak li ci biiram moo tax ñi naan yonente bi benn waaye bu indi woon message la rek jox la message bi message bi daal nga utiliser waaye moom ñooña xamuñu yonente bi bu fekkoon ku jottali message dong la nga war a jël message bi la jox rek te pare kon loo koy bëggee ba mu lay gënal sa pour nga doon message yàlla sax ku ko jox doo ko tuuti de mënoo tuuti waaw ku yàlla tànn ba jox a rëy ñëpp ndax allahu yastafi min al malaikati rusulan mhm. wa wa rabbuka yaxluqu maa yashaau wa yaxtaar mhm. maa kaana lahumul xiyaratu subhanallahi wa taala ma mhm. mooy mooy kon yunt bi da koy bëgg ginnaaw bi nga ko gëmee da koy bëgg ba mu gënal la lépp gënal la ñëpp waaye ñetteel bi pour war na dara ji yonent bi salaa salaam pour sa ngëm mat mhm. bi nga ko bëggee ba mu gën a la lépp da nga koy nangoo topp di ko roy topp gi di ko roy nag ñeenti anam la mooy lu mu la digal nga def ko mhm. lu mu la tere nga bàyyi wa ma aataakumu rasuulu faqusuuhu mhm. wa ma nahaakum anhu fantahu ba noppi nag wa taqullah inna laa sadul xiqaab ba noppi itam di ko roy ci ni muy jaamoo yàlla Mm-hmm. moo tax ma dégg mu naan euh, sallu kama raaytumuni usalli mm-hmm. ak xusu bii manasikakum xool leen ci man ne may aje ngeen aje ni xool leen ci man ne may jullee ngeen jullee ni moo nu jàngal ne nuy woore mm-hmm. kon da nga ko roy ci ni muy jaamoo yàlla ba noppi di ko roy ci jikkoom a rafet laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun azana liman kaana yarjullaha wal yawmal axira wa zakara la kasira parce que topp gi yàlla moo ko moo ko gàll julit bu ne yaa ayyuha allazina amanu atiihu allaha wa atihu rasula wa uli lamri minkum yaa ayuha alladina amanu atihu allaha wa atihu rasula wala tubtilu ahmalikum wa atihu allaha wa atihu rasula fa in tawallaytum fa innama ala rasulina albalaaxul mubin wa atihu allaha wa rasulahu wala tawallaw anhu wa antum tasmahun saa yu ne ni ngeen ma topp man yàlla da cee teg te topp yonent bi mooy lan mhmm. topp ma man yàlla yéen a ngi koy defee ci topp yonent bi ndax man du ngeen ma gis du ma jëflante ak yéen ni ngeen mooy ni ngeen di topp yonent bi ci laa xamee ne topp ngeen ma moo tax ba gaañ a beroo ne ko nahnu abnaa ullahi wa ahibbaahu yahud yaa ko xoon mhm. ak nasaraan yi wa qaalatil yahud wan nasaara nahnu abnaa ullahi wa ahibbaahu ñun yàlla kat eh, dañ laa bëgg ba say doom lanu daa say soppe lanu mhm. mun yonent bi tontul xul in kuntum tuhibbuuna llaah fattabihuunii nga topp ga ñëw na yuhbibkumullaah mhm. wa yaxfir lakum sunuubakum wallaahu gafuurun wa qul atiihu llaah war rasuula na fa in tawallaw daane fa inna allah maanaam daal fu ma la déggee daal euh, euh, sëñ Saliou mais mënu si la topp yàlla sans yonent bi sans yonent bi mënta nekk bunt bi daal mënoo ko fee romb mënoo ko fee romb mënoo topp yàlla te fekkul nga topp yonent bi am na lu gën a garaaw am na kay siixa boo xam si mu bon a man yutihi rasula mhm. faqat ataaha allah waxin woowoo gën a yéeme waaw wax nga dëgg de ku topp yonent bi fa ca sensé arafu atif la mhm. juróom-ñeent la bi fa in wa waawin aw ima am wa bal wala walakin suma xattal xat faxan la sin bi wax na ko sanrat turab juróom-ñeent arafu atif yi mhm. faa nag immédiatement la fa xat xatuk taxqiix la ndax ataaxa gi ci topp a tax ndax fiilu mhm. maadin la waxut faqat yuteexu faqat ataaxa xat bu àndeeg fiilu maadin xatu taxqiix la ndax juróomi atta yi tànqi taqlil taqrir taqsir ak tawqi noonu lay xat am atte man yutihi te yuti yi sii xatuma daari xala mhm. fii yëg yaa ngi topp yonente bi fa ca sensé xat sa dëgg-dëgg ataaxa laa topp nga yàlla waxul ne sax boo toppee yonente bi mu teg la ci yoonu yàlla wala boo toppee yonente bi di nga topp yàlla déedéet di nga toppee yonente bi rek automatiquement yaa ngi ci biir yaa ngi ci topp yàlla kon mooy topp gi ngay topp yonente bi mooy firi sax topp yàlla est-ce que nga aaya bi loolu la wax may yuti yi rasula fa xat mhm. ataaxallaa wa man tawalla fa maa arsalnaaka alayhim xafisa yaa ngi dégg saa googu faa sababiyya la wala. ah eh, faaw la. atif la ah daf da ko atif ci wax ji da koo kole. la ah, hmm. ba nag mu kale ko ca fa ca sensé. Ah, d' accord ah bi nga topp yënt bi rek fa ca hmm. mi ngi mel ne bi mu ne. wa isaa sa'alaka ibaadi hanni bu la sama jaam yi laajee anama bu fa nekkee naan waxal wax ko naan waxal ni maa ngi fa. Hmm. fa sensé rek maa ngi nii mooy danoo jege jege goo xam ni waxal ni sax xaju fa. yaa ngi dégg wa isa saalak xibaar yi xam ne faa faa googu loolu lay dox mooy faaw atif waaye gis nga alaaji Maodo li tax nag topp yonent bi jullit bu ne ñu gàll la ko mhm. xam nga lu tax li mhm. ma la waxee léegi ne la tax ñu gàll la gëm ko boo ko gëmul mënoo gëm yàlla li ma la tax ñu gàll la sopp ko boo ko sa ngëm du mat ndax mhm. moo ko wax te sa ba ngëm sa ngëm bu matul loo xam ne cent pour cent lañ nga soxla ngay am ay trente ak dix-huit wóoragut yaa ngi dégg li tax nag ñu gàllaat lay topp ko xam nga lu tax boo topp yonent bi mënoo jub waaw te boo jubagul te ko moo tax alxuraan ni wa in tutiihuhu tahtadu tahtadu waaw su ngeen ko toppee daal daal di orienté wu daal di daal di wu yaa ngi dégg kon su ngeen ko tur kon léegi hidaaye bi mi ngi ci yonent bi rek hidaaye bi mi ngi ci topp yonent bi te hidaaye bi nga soxla ndax uleeka ala hudan min rabbihim <laughs> wa uleeka humul muflihun sëñ Saliou wax dëgg <laughs> yàlla waxtaan wi toll na foo xam ne fi ñu ngi ma dox ñaari yoon siñ na ma waxtu wi waxtu wi yegg si na ah, te fi toll nii wax dëgg yàlla boo gisee ma bañoon laa dog waaw damaa gis nga def waxtaan woo xam ne yow fu ma seref ko dàq ah, alhamdulilah ndax da wax ci yonent bi te génnoo téere yàlla bi ah loolu de yàlla waaw te it nga def ci ay ay amsaal yoo xam ne yii lu waay gàtt gàtt gàtt gàtt xam-xam ak koo mën a doon war naa xam ne lii nga wax dëgg la ndax du say wax waaw de alquran la de ak sunna waaw ak sunna kon benn point de nu desoo na xam naa kon bu ñu dellu si waat waaw bu lenn lu ci ne wutal nga ko dalil alquran ak moo ko waxal boppam moo tax moo tax thème bi thème bu am solo la. te damay ñaan itam ñu dellusiwaat ci. danañ ko dellusiwaat yeggale ko ndax ñeenti point yi nga xam ne. julli bu ne yàlla la ko gàlle ci àdduna bi mm-hmm. gi. ak bëgg gi bu ma jëlee alxames bi maa ko ci télé bi bu ca tegu ñu mottali ñu mottali ko wax kay waaw kon ngi maa ngi nuyu nag njabootu Sëñ Mor Mbaye Cissé gépp te di ko teg ci loxol Sëñ Abdoulaye Cissé sunu xalifa ba di ñaan mu yàgg fi te wér amiin ak sama bàjjen yi ak sama nijaay di nuyu it njabootu Sëñ Mor Dem gépp di ko teg ci loxol sunu xalifa ba maam Cheikh Dem Mm-hmm. ak bàjjen yaak nijaay yaak ñëpp maa ngi leen nuyu ak njabootu sëñ Mamar Absolo gépp di ko teg ci loxol sunu xalifa ba sëriñ Saliou Lo mm-hmm. waaye di nuyu sunu soppe yëpp ak mbooleem cantaakoon yi yeesal ab nuyoo ki soxna Ayda Saliou sunu sang bi di ñaan mu yàgg fi tànn bu wér waaw dinañ la ko nuyu bu baax saa su ne nag ñu jotali ko sax say nuyoo mm-hmm. kon lu dëng ci waxtaane nanu xam ne man la gàtt xam-xam ak néew fasaxa lu ci jub nag dama xam li nga wax man mënu mu ci dindi dara. alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant nag sëñ Saliou jërëjëf wax dëgg yàlla di la gërëm bu baax ci ci laayee biiru xam-xam gi nga xamee ne da nga ko am ngir laaye ko biir ñi nga xam ne ñoo mel ne man te seen àll gàtt te it ma gis itam ñaare boo koy wax lenn lu ci ne da nga indi fa yàlla waxee loolee teg ko. alhamdulilah nit nag loo ko weddi weddi moom mun a weddi wax li wax yàlla. tey wax yàlla rek nga tey wax yàlla rek nga fi wax. alhamdulilah ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm. di sant képp ku mën a doon koo xam ne ki yéen a bokk mouvement Mouride Cantaku nii sa bokki bopp yi nga nuyu itam ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla defal la sutura sa xam-xam yàlla na yàlla yokk ko sëñ Mor Fall Njaareem waaw sama sëriñu daara ba maa ngi koy siyaare siyaare bu màgg te di ñaan mu yàgg fi te wér ak mboolem ñoo bokkaloon daara kon nag yéena <laughs> jërë ngeen jëf kon bokk yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm beneen alxamis incha allah daañu dikkat ci beneen gan wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf jërëjëf bi day te yaa xawla wala ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا